soxna Faatu Jóob borom ndakaaru njaay satub lat Jóob Jóob jikko bi nga ni foo ko gis jëmm ji ngay njëkk seen tubarkàlla macha fii lii lépp korona ci dugal xamuñu woon ay waaye nag yëpp li géer lan nag feebar bi moom lu ni mees na def fi mu nekk nii kii nag moom day sànn dafa ab géwal la woon jàngi alxuraan ba wàcc bi mu jàngee nag ba jàng ba jeexal téere yëpp ma sëriñ bi xam nga bu boo masaan wàcc alxuraan dañ lay bindal ab leetar pour ngeetaale ko sa baay góor si nag jibi la tuddoon bi mu daal di jox baay bi ah kooku jibi mun ne ko ah, waaw kañ nga ñëw mu ne ko ñëw naa waaye dox nga naaj di mbaa jàmm mu ne ko man de sëñ bi dama wàcce mu ne ko ah na la daal di koy jox lettre baay bi xool def yëpp aw nag ñu togg ceebu yàpp yi baax tàngal café ngoon ba nit ñi mu ne ko jibikaay ñu dugg ci néegu biir mu ne ko dama laa soxla woon mu ne yaakaar luy la ko dee mu ne ko xam nga ne bi ngay ñëwee di fekk nga man magal mu ne ko koy bàyyi wax dëgg yàlla dama laa ñeewante sax ma la gisee mu ne ko ginnaaw xam nga loolu nag damaa bëgg nga lagg jàngi fecc ndax nga mën maaw ci kër gi góor ko ay ay ko xoolal bu ma jaxase ak àddina dégg baax na lool dugg ci sa dënn ba ba noppi laggal nga jàngi fecc ndax man maaw ci kër gi dégg nga li ma la bu baax làmb poos kot génn ñaari junni ko teel nii teel nii nga paas ci ma fonto la wax amat kii demal nga jàngi fecc ndax man ma aw ci kër ko ñun ay géwal lan alxuraan ji moom dugg na ci sa dënd ba noppi ngóor si defar saak bi di jooy rek am lu ko naqari defar bagage yi duggoor oto bi daw di daw ba tolloo ko dëkk bi mu ne ma ma ko yow egg goo nga war a wàcc mu ne waaw fii ma may mu di wàcc ñëw ci bi ah ko mu ne <laughs> eh na nga def mbaa yaa ci jàmm ana sa bàyyi mu ne ko ma nga fa mu ne ko mbaa xanaa kontaan na de jox nga ko lettre mu ne waaw jox naa ko lettre bu ne ah, kontaan na bu baax mu ne waaw kontaan na waaye daam dama wax lu ma jaaxal de mu ne ko ah lu mu la war wax noonu mu ne ko daal dani ma ginnaaw ay géwal lan naa jàngi fecc ndax ma mën kaa uti kër gi ko auzu billahi mina seytaana rajim laa ilaha illallah sayyidina ahmad rasulullah sallallahu yi ay waa ji yow sa bàyyi moom ah sa bàyyi àddina fakk na ko de yow li ma def sa dënn bi yow nga war a jàngale xam-xam war a yor ay daara fecc ah waaye sa bàyyi moom joxoon na la dara góor su ne ko waaw joxoon na ma ñaari junni de ah, andi ñaari junni góor si jël ñaar sëñ bi jël ñaari junni ne ko ne ko jógal taxaw góor si jóg taxaw mu ne ko talañal sa tubéy ji ba mu dër nga téye ko góor si talañ tubéy ji ba mu dër mu téye mu ne ko ne la war war ma gis mu ne war war war war war war mu ne ko neel jargandal mu ne jargandal ne ko neel tëy mu ne tëy mu ne ko neel alañ di ñëw nag del alañal di ma wursi nag wursi alañ di ko wursi mu jël ñaari junni di sa poos bi jàngal na ko alxuraan jàngal ko fecc ñu ngi koy jéggulu bu baax nag lépp ci corona rek